si al amin boo gisee ñu tàmbalee ci moom dafay faral di wax ne suñu maam ji daan wax ne nit bu ko xeebal ñettal nit soo ko xeebalee sëriñam yaa ko tooñ nit soo ko xeebalee bësam yaa ko tooñ nit soo ko xeebalee soxlaam yaa ko tooñ moo tax ñu tàmbalee ci moom di ko nuyoo di ko dox wàccuwaayam di ko ziar muy suñu xarit suñu sëriñ suñu pàpp di nuyu le gouverneur de la région de Thiès di nuyu le maire préfet autorité yi nga xamante ni ñoo fi nekk yépp administrative di nuyu sama collègue yi fi nekk muy Tata Aïssata Sall ak ki nga xamante ne nii moom mooy El Hadj ak bépp kilifa boo xamante ne nii fekk nañ la fi nga toog le directeur bi nga xam ne mooy directeur SAR ak suñu kilifa yi ak responsable yi ñu fekk ak sportif yi ak ñi nga xam ne ay mbër lañ nekk ay star fii ci dëkk bi di nuyu suñu mag gason ak képp koo xam ne fekk nañ la fi ngeen jégal ñu ku ñu limul ñu xam ne du fàtte mais bañ a guddal la di nuyu suñu papa El su Mansour Mbaye bu ñu ko nuyoo nuyu nañ communicateur traditionnel yëpp di wax ne bu ñu jël kàddu fii gouverneur moo fi toogal ki nga xam ne mooy njiitu réew mi nekk le gouverneur ici à Thiès dañuy wax rek ci turu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Thiès le ministère Laurent Sané Sarr wax nañ ko sànq ak ki nga xam ne mooy Augustin Tine bu doon conseil des ministres yi ñoom ñooy toog fii suñu place di wax ne rek li nga xam ne gis nañ ko fi sànq ci diggante suñu kilifa gu tedd kii Serigne Abdou Aziz Al Amine ak ki nga xam ne mooy. sëriñ Abdou Karim borom Makarim al Axlaa war na mun a tax ñun ñi nga xamante ni ñooy nekk les hommes politiques ñu daal xam ne senegal dara mënu fee am lu dul jàmm soo gisee ñuy wax loolu nag am na ay yëngu yu am fii jamono yi sëriñ ñu lay wax nga ñaanal nit ñi dellu si seen xel ñu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xam ñaar ñun nag ay ndaw lañ nekk ci politique. waaye yàlla def na fi ñu taxaw di wax am na ñeneen ñu fi taxawal di wax te ëllëg ñeneen ñooy toog suñu place di wax nit dafa war di xalaat ne dara saxul ci àdduna lépp loo gis dafay jeex tey am na ñoo xam ne Cees gi dañ daan wax ay député lañ fi woon ñun ñii tey yàlla jox tey ndomba tànk boobu ëllëg dañ ñuy waxtaane naan ancien député boo sëriñ bi ñu lay ziar di wax ne ancien ministre ancien gouverneur ancien député lépp di ko dëgg waaye ancien marabout amul fenn moo tax ñii dañ leen war a jox cër gi leen jox seen wàccuwaay di wax ne